Sejinyo, yon yon yon yon yon yon yon yon yeneen chaise yeneen chaise yi la yëpp nañ nañ ñu ko indi maa ngi ne siggi leen siggi leen siggi leen siggi leen siggi leen xaaral mu pare xaaral waajal soxna si jébbal ko boromam ci darajay weer wi ak sangam ba Seydina Muhammad xel yi nag dal na ci waaye metti na mais mënut a ñàkk buñ ca jógee nag dañuy fa yéene ñëw fii kenn ku nekk kii nga xam ne moom la ko yàlla booleeloon nu ànd di liggéeyal yàlla liggéeyal ko liggéey bu mat sëkk ndax léegi rek lay dégg témoignage yi dafa doy sëkk ñetti puukaréewu yëpp mënoon na koy puukaréewoo te dafa effacé wu coon seet tey sama wéyjur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 looloo jar a bàyyi xel asalaamaaleykum kon mu jàpp loolu rek muy ndigal yoo xam ne dañ ko jot jërëjëf gis ngeen daal la ko jotee si li nga xamante ne moo di kër bu gànkee benn waaw ñu ñaan ñi ñu ñaan ñi ñu jooy yi ñu ci teg mooy góor ñi ñoo koy gunge ci këru dëgg ga kon dañuy def tànk rek ñu utal leen ñu xewlu ba noppi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 bu teewee yoonu murit yëpp ñëw na fii kii tey du ñëwee ku sant Mbàkke ku sant Mbàkke boo ñëwaatutoon sax ñëpp ñëw na yoon wi ñëw na sëñ baaraay maama ko sëñ basa sëñ xaadim awa ba meññ ko mi ngi noonu di nuyoo xaritam soppeem taalibeem sëriñ Tuubaa ñu bokk daaru fu dóos ñoom ñaar lii rek doy na sëkk ci li ma doon wax sëriñ Basiru Mbàkke bisimilah Mbàkke bii sonn na ci moom de mais bi nga ñëwee oyof na. Bara Gaye lay nuyoo noonu. jërëjëf Mbàkke amoo jot waaye lii doo ko tan xam lu mu doo ko tan xam lii metti na loolu waaye bi mu la gisee bari na lu bari lu déchargé wu ci moom jërëjëf Mbàkke da ngaa fekk ñu doon wax ne dañ koy waajal dem fële ca mosquée bu Ouest Foire ànd ak moom ci tur dëgg ko jébbal ko boromam waaye Mbàkke boo ñëwee sëñ Muntaxa ñëw na màggal gi bi ñu àndee maa ngi moom ci sëñ Muntaxa li ko sëriñ bi wax doy na sëkk xamee ma la lu bëgg sëñ Tuubaa ak bëgg réew te loolu mooy benn wax mais yàgg na ko ko wax te loolu mu ko wax moo valable ci xalifa ñaseen ci waawoon sëñ Babacar Si Mansour dañ koy jàpp Mbàkke kon boo ñëwee umma bi yëpp ñëw na ñëpp ñëw lii diisoon na lool ci waaye bi ñu la gisee xaw naa woyof te Mbàkke noo ngi ñaan nga ñaan ci barkeb sëñ Baara ñaan ci barkeb weer wi soxna si fee mu jëm bu mu fa gis dara lu ko naqari noo la koy ñaan jërëjëf Mbàkke circulation Thank you.